Basumo. Basumo Mbare. Sukononko Abidje Iba le Dia. Là, nous sommes dans un tournoi très décisif. Raison pour laquelle je me demande, est-ce la peine de dialoguer Ou faut combattre pour de bon au lieu de dialoguer J'opte pour le combat. J'opte pour le combat et j'ai mes raisons. Seul le combat pourra faire sortir le système et non Macky Je vous avais averti. Ce n'était pas la personne de Sonko qui nous intéressait, ni la personne de Macky sur ce combat-là. Non, c'était le système et l'antisystème. Et c'est dommage que le système a réussi sur l'antisystème. Et c'est dommage. Sénégal, Comme nous ko dit, nous avons bañ de ne woon naa leen xeex est sur na Sonko weesu na Macky Sall ñoom sont trop petits pour le ñu mais Macky Sall dans les pressam ak kat yi kay encadré gis nga len ci combi lañ ñu gagné ni ñu gagné ci combi dem détourner combat bi ba wax ñu ne combat bi c'est Ousmane Sonko or le combat là n'était pas Ousmane Sonko car Ousmane Sonko n'est pas un candidat man lool lay wax loolo ma nakari fi mu toll nii moo tax démb ma ne ma ki wax ba paré ça m'intéresse pas il a été clair et net il a été clair et net à partir du 2 avril je vais vous maa ngi waxaat kenn kenn kenn les politiciens yi ont Macky Sall le 2 avril bu élection amul bu amul successeur kenn mënu ko fi jëlee lu dul mu démissionné le 1er avril wala le 31 mars wa ilaa coup d'état am wa a ñu xeex coup d'état am loolu donc moo fi mun jëlee Macky Sall mais ay naan dañuy politique dañuy conférence de presse yi moo fi jëlee Macky Sall non je te dafa am fu muy toll nag politiciens yi duñ ñu ko quoi ñoom ñooy wut ay poste ñoom ñooy xëccoo réew mi ñoom ñooy wut seeni intérêt société civile bu ne damay génn bëgg a xeex teen démb Macky Sall allocution bu mu def ça a été monté et piraté naa leen chaque dialogue yi day nekk jeudi ak lundi ce ki fait que dañuy bloqué manifestation mardi yi ak vendredi yi xam nga ñun fu ñu daanoo fi ñu tànnalee suñu manifestation ay jour fala coow lu yàqoo solution bi bi mën a am bi mën a am bi mën a am mooy ñi demul ci dialogue ñu ngi ci yoon parce que man je ne comprends pas aller dialoguer avec Macky Sall ne ko yaay jël décision non te conseil constitutionnel nekk fi te conseil constitutionnel du mos a jël décision bu dem ci à l'encontre de Macky Sall man moom pour dialoguer fenn dong laa dégloo Macky Sall wax bu fippu fi Macky Sall fippoo nak yéen ñëpp xam ngeen ko moy fi mu waxe ba ne ñun à l'international kon xam ngeen ne on avait déjà gagné le combat. gagné nañ combat bi ba à l'international presse bi bind ko gis ngeen num ko metté da ko nakari kon on avait déjà gagné le combat mais kan mo ñu rey c'est les opposants ñoo ñu rey ba dem Macky nee na leen africain la motax Macky bi nga naan africain nga sa passage boobu passage yu 2009 la may jox bi nga naan africain nga waa léegi yow nga ne africain nga da ngay organiser élection léegi organiser ko ala avant le deux ba pare li la France imposé bañal parce que yow gis nga gis nga rek yow en une semaine yow ni la tubaab yàqatee te tey Sénégal xamuñu ne yow ne nekkul France moo la fal de attendez de du France moo fal Macky Sall de 2012 waa PGA lobby góor jigéen gu mag googee lobby góor bi c'est pas français Le lobby góor bi ça regarde les multinationales États-Unis la dépendre mais de France encore une fois Macky c'est pas les Français qui l'ont élu deuxième mandat la France japp ñëw mu signé les ay contrat ñu exploité ko mais Macky gorjigen ñako pas fal nay leer li ma leen waxoon rek compté nañu ay chiffres ba ay quatre heures du matin am juge bu gedd parce que dañoo ñëw ne ñu Macky Sall gagné fekk boobu Moustapha Niass a jiitu woon lu bëri loolu ça m'est arrivé à Gossas nit mos fa gagné ku dul Moustapha Niass mais 2012 présidentielle Macky Sall gagné woon fa la ma fekkoon représentant parti Robert Sagna laa woon pour wan leen ne ni ma tàmmee ni ma yàggee gëm waa Casamance Macky góor jigéen ñi ils ont été ak ñoom. C'est grand là, lay wax la France beugé imposer organiser l'élection avant le 2. bu 20h féliciter Amadou Ba erreur ngay def Qui nek ce premier ministre ñu wax yi parce que tam li pël bi def Amadou Ba def comment nga mun ñëw nek premier ministre bu état wa France Walla, la ñoom buñ la wowe pour négocier ay contrat la ak yoy mais ken fen lolo kenn dul loola ma xam ngeen li xew ci rew mépp li xew Sénégal tuyeeri yeeg dil Macky Sall doon teg ak rendez-vous Amadou Ba bu mag bobu mu ñëwoon fi Amadou Ba secret d'état yu xalatul sax andil nako wa France tek ko sur la table pour lan Macky Sall mënut mënutul digérer waa ji man sama bopp man depuis man je ne digère plus Amadou Ba man personnellement man je ne le digère pas ku ñemee yow faloogoo jël suñu réew li fay bon li fay baax ñëw jébbal ku réew France bu tubaab wóolu la gis nga tubaab ni mu bonee tubaab ndeysaan tubaab doomeram lay wóolu c'est que tubaab ab doomeram pire de tubaab di wóolu

père ya xam wax na démb ba nako Macky Sall est ce sa njabot wa legui sa njabot gi nak no leni ni gérer ndax xam nga ne soulèvement populaire day am dawda <laughs> le combattant soulèvement populaire day am par force par force soulèvement populaire day am ndax le deux Macky du fi jóge kooku moom soyons en clair dès maintenant fal la tek du fi joggé nak lama len waxone rek Adel goro sëñ Mbaye Sy Mansour sëriñu xalif généraux yeeg ñoom ñëpp Macky foog mu consommer au minimum six mois ci deux mille vingt quatre bi pour notoriété res loolu ñoom seen affaire xërëm la ak yooyu ñoo xam ñoom seen i affaire la maanaam six mois yi foog mu consommer ko si deux mille vingt quatre bi maanaam si mois yi keneen mënu fi toogaat élection du am si réew mi président mënul am ci réew mi 6 mois yi ni fi le mois de juin bok manam il faut que tout soit bloqué bo len ma weddee buñ démé élection Macky Sall nga né africain nga bu la France dugalee ci nga né Amadou Ba gagné nga après ñom enquête yoy dañ koy tek sur la table rendi di sa ndey Macky Sall buñ la nan Sonko mo gën ci yow comprendre woon li parce que tay Sonko en tant que président munoon na forcé tey Bassirou Diomaye Faye laa mais ne ko non la bàyyi mu jàll joxe naa sama kàddu ba ba pare mais Bassirou Diomaye fay ne t'a rien garanti comme gars yi nag ñu ne dialogue jaloog bi foo koy defee ban jaaxle bu jam ñaajo mooy centre Abdou Diouf ndax moom daa jaaxle ba bind bindaat Macky Macky benn solution rek am Diomaye jamaay mi ngay bañ dégg xam nga luy solution bi yow yaay ki yónnee ñu dem génneel la ko prison andil la ko ngeen toog nga wax nga organiser élection mois de mars bi nga jóge fi le 2 mooy sa yërmande Ba bu toogee ren di sa kii ñëw duulal la à l'opinion international génnee secret d'état yëpp wili pande la fépp Amadou Ba bu toogee ren di sa xam naa lu ma lay wax tubaab doomeraam la soxla suñu bopp réew quitte à ce que conseil constitutionnel na ñu génnee nday nationalité Amadou Ba extrait de naissance am bi ñu changé bu Sénégal bi Amadou Ba il n'est pas né au Sénégal amul parent bu juddoo Sénégal maa leen koy wax di leen ko waxaat première dame mauritanienne lañ nar am ak première dame guinéenne imposée par la France encore une fois c'est la France qui veut imposer Amadou Ba Macky loolu la leen wax démb ci interview bi moom la fépp man temps yëpp maa ngi yuuxu naan leen ingérence ingérence yéen ngeen jël combat bi dem délégué ko ay France ak secrétariat Amérique wax na waa léegi mu ngoog délégué ngeen leen combat bi waa léegi ñoom nag bu ñu jëlee décision boo xam ne Macky d'accord si léegi fu fu réew mi di mujjee dinañ xeex ndeyam par force foog ñu xeex gars yi foog ñu fight ak ñii parce que affaire bi affaire système la France bëggatul ñàkk système am même bu Paris même bu Macky Sall pare woon pour sacrifier nday France France rey ko xam nga force occulte yi dañ naan ay force ay force voilà Macky nag dugg na ci loo xam ma mooy ëpp na ko doole parce que ingérence bi ko tubaab tegal woon ko ne dafa bon ma mooy moom mu ngi doog a gis ne ndekete tubaab doomeraam la te lii yëpp yàgg nañ la ko wax Pape Alé Niang yàgg na wax ñëpp wax ñu Sonko moo gën ci yow Sonko moo gën ci yow man xam na ay kilifa yu mag ci biir réew mi yoo xam dañ la daan saraxu naan la bàyyil booy bi jàll moo gën ci yow tey nag bal baa ngi fii léeg le deux ah yaa leen koy xam noo leen ko nappaajee ndax lépp politique moo koy réglé nekku justice moo koy réglé ah affaire bi moment yi politique moo koy réglé soit li ñu waxoon assemblée nationale tu l'appliques tout de suite di si si dialogue bi ngeen teg ko de ngeen ne eh koo xam ne kii nga am parrainage citoyen yooyu baaxatul léegi parrainage élu yi mooy ñëw ay wo pouvoir à cassation bu Ousmane Sonko ñëw rabat d'arrêt yi ñu kase affaire Mame Mbaye Niang léegi dugal Ousmane Sonko le 17 mu bokk lépp politique moo koy réglé Macky Sall yaa ne da ngay jalo fa gars ñemela wax deug bul nangul li la tuba bëgg def lo bañal tay mom grand la lay wax de bul nangul li la tuba bëgg def lo li la tuba bëgg def lo tek lolu Amadou Ba garantie buñ ñu la mënti jox dañuy fen xamna luma lay wax Mauritanie gis nga lu fa xew president bi jëlul ay garantie ana garantie am jëlul ñuko ci kasso bi tout sauf Amadou Ba quitte à ce coup d'état mais Amadou ça sera la dernière des choses est très national Amadou budget Sénégal est très important. Sénégal Sénégal gouvernement Amadou c'est Amadou Ba dossier la yor dossier danger bu kenn xamul mi garaaw la Sénégal toog Macky Sall moment yi dañ ko xoj te duma leen nëbb ça ne sera pas ay patriotes ñoo koy rey ah. Macky Sall tey boo leen déggee dee na tubaab bee ko rey bés bu génnee félicité Diomaye Faye da ngeen di dégg ñu ne rey nañ ko Macky il est cuit moo tax ñun nag peuple bi moment bi ñun nag ñoo mun a nag révolté génn teg suñu lépp si tali bi dëgganteeg ndey nii jëlee leen fi mbuub tey nag foog moo wax si moom waa sàmm jikko yi parce que j'ai des problèmes te dafa am sama xarit bu baax bu nekk Touba yónnee ma ne ma xaw ma lan mbuub bu duggee Touba xaw ma lan eh eh eh eh mais yéen mais lu mbuub wax mais attendez Mali Mali ab ilimaan moo ko fa jëlee Mali imaam moo génn ak ñoom xeex waaw ñun Sénégal ana suñu imam mais ñun biñu jekkoo Macky Sall tay kuter, nor ko teur tay Macky Sall tay kan la wo référence du sëñ muntaha ngeen bëgg na mbub di wax eh mbub maa la ay garde man man man man je m'engage man xam nga man waaw Senegal, lay nek Sénégal damay sey fep je m'engage je m'engage la leen wax de je m'engage xam nga man ngeen diñ chef Al Qaïda bu Sénégal je m'engage mbub mbub bu ko dara xuree dara xuree sëñ Bass Abdou Khadre boo fekkee élection ma ma suuf pénétré naa la say vidéo yooyu c'est ta vie privée mais bii pa bal laay ñëwee nee naa leen Sénégal toll nañ foo xam wax dootul bëri tey jóg ngeen ne da ngeen di manifester ñu la daw dem def conférence de presse may reere gis nga fi ma toog laa toog booy yi grand grand ma leen bu kenn gën taal parce que waa Touba commencé nañu kere coow loo xam tey bu ñu manifester mën nañu jural loo xam ne li ñuy wër du ñun ñoo leen koy may li ñuy wër du ñun leen koy may ñun bu ñu jog pour xeex ñuy dëgg ndey réew mi mais du ñun ñoo leen koy may. kaw bi ngeen di wëral Macky Sall rafetal affaire bi attaqué ay fetal génn ngeen di wër noo du man maa leen koy may mais tout ce qui est patriote maintenant man maay jël seen responsabilité. ay bal ngeen di mujjee billahi wallahi laa leen wax xeex bi di ngeen commencé dégg na changé na envergure bi changé na. di ngeen jékki-jékki kilifa gu mag dee na am na si ñoo xam enveloppe kese lañ leen yónnee ñu tijji ko commencé nañ dugg hôpital enveloppe kese xeex bi beneen c'est que foog ngeen doon ay criminel c'est que Sénégal da ngeen nekk ci ay wér dëkk ay ndeysaan ay sentiment ba mu ëpp. di ngeen ko dégg semaine bi am na kilifa yu dugg hôpital enveloppe yi yegg na ba pare. vous avez financé les la gars yi si gens ñoom ngi ci ay affaire empoisonné les ñi da ngay empoisonné seen Ils xam nga des wut pour une ont Sonko man presse dinañ ci wax autorité mu ngi hôpital autorité enveloppe de Sénégal kër yu bëri enveloppe patriote Ils une enveloppe yàlla na enveloppe mais ay marisanya, Marius Amadou Ba yeen ñep seen enveloppe mu ngi ñew yeen ñi ralentir sama xex yow Amadou Ba ma ngi ñew yow mom ma lay jël en charge personnel yow mom ma xew benen dig lañuy gérer déjà yow té pas sénégalais déjà yow té pas sénégalais contrôler na bu contrôler say origine té pas sénégalais man na kudul sénégalais mëna to tok du ralentir sama xex damay rendi sa nday xam nga té pas sénégalais té un mauritanien vous êtes les Peuls ak dumuru foo diwut loo ma maccaat dedet damay rendi santay man def naa ba faruma fenn buñu waxate dañuy xex Amadou Ba nga duggal ci sa grain de sel wala ben autorité passif duggu ci panel wax buñu taré manifester sa kër la ñew deug ndayam caaw li jeex xam nga mamay wa passif tam foog ñu commencé comme da fakk yene jité légui léegi ñu defante ko yéen xam nga lan moma metti député mu mënu ma wax nga dem touré nga dem kasso ana wa passif ana wa passif ana waa Pastef ana waa Pastef ana waa Pastef Ngagne Demba Touré ngi kaso Ngagne Demba Touré mii am fitu saaga ndey juge yéen kan moo ci am fitu saaga ndey juge ci 2000 prisonniers kan moo ci am fitu saaga ndey juge waa léegi ana ñu daan wax Ngagne Demba Touré non nañu warmaal saaga live waaw waa léegi waa yéen Ngagne Demba Touré waa yéen bu doon saaga ndey ci live ak dem jàkkaarloo juge saaga ko ndey ban moo gëm dangereux aywa juge na la las na dana ko seut way bo mo waxatee laaj da ngay dëgg sa nday yow yaay martatu yaay gor jigen Macky Sall yow la Macky Sall di kat ba gars yi fa di daw di taf di mu saga sen le fa nday yeen ñep yeen anam ayo kon xam ngeen lan motax ñep di saga ndo say gars la fay yobbu ngagn gor la xaw nañ ko blesser c'est normal parce que dafa fepp xep ci nday kani dafa fepp xep ci kani mbag yep waaw metti la fanano. xol bu la sama boy fanano depuis dem wax Amna ñu naan la mom greffier la eh man ci juin Dor nañ ma 15 jours procureur Aliou Ndaw def na procureur Aliou Ndaw mi may andal tay faral di politique Lako kan Gabriel Manel ñun suñu équipe Lako, man da nga may dóor 15 jours yóbbu ma 6 mois ndax da nga may dóor 15 jours 15 jours nga ne waaw vous êtes condamné à 15 jours man la nga condamné ko sa lëfal ndey nga yokk ak 15 man la nga condamné ko sa diggu cottu ndey nga yokk 15 ba pénitencier yooyu ma mujjee fob daw ak man. man ragalu ma de man gis nga man tribunal laa lay xaar ba nga condamné ma li ma condamné ma dagg ko dugal ko sa lëfal ndey yow man bokkuma ak ñooñu ñuy woo ñuy tor tor yi dañ may jugé gaw ma ndey loolu xam nga lan laa gëm. damay dé bakkan bi moomuñu ko dañuy sango souf man lool la gëm xam ma lu ma gëm dé ndax dé moy dëgg dé dé la gëm point dé lenen lo may wax lu dul dé dag li nga may wax daf may soof dé la gëm la mort je crois trop à la mort parce que c'est quelque chose de réel motax mënu ma ragal mu ta jàkkaarloo juge wala jàkkaarloo commissaire wala préfet gouverneur xof ma xof ci kanamu nit mën ta nek parce que damay sang néew xet bi dama koy sentir damay xam ne kii la Macky Sall la fi mu toog day am xet bu sanguwul fa la liberté am yem kon rey ndayam da ngay ay bàkkaaram mais Macky tey mënoo ko dem safara fa laay waxee amnistie bi c'est pour lui amnistie bi c'est pour protéger sa famille c'est pas pour nous Sonko n'a rien fait il n'a jamais été condamné point gars yi foog le présent

combattant si 313 313 yi ñaata personne la ñu pour jàll pour def une révolution biir la Mecque Il y a yi bu leen ñu nax dañu war a xeex ndey kii jëlee ko fii sinon le 2 avril moi jiite en ah, mois de juin lañ jëm de mois de juin bu organiser élection nag bu ko France vous vous mu féliciter Amadou Ba boobu nag armée day génn de couvre-feu Amadou Ba génn ne <coughs> ku yëngal ma <laughs> dëgg sa ndey xam nga moom nanka lay wax Amadou Ba genre Modou Lo la su boobaa su suuf la naan ku yëngal dëgg leen dayam ba pare génn naan nañ leen wut la paix la paix ba pare ku yëngal mu dëgg sa ndey si koy Amadou Ba nay leer de bu ñu demee moom élection à vingt heures il va féliciter Amadou Ba bu féliciter Amadou Ba nag ah on aura un nouveau gardien de la constitution su boobaa nag état su boobaa nag ISEM dafay mun a nag teguwaat ci yoonu rey ak emprisonné waat balaa ñu faa yegg nag. déstabilisons tout paralyser nday dëkk bi surtout le 25 février jour élection l'élection, ñun war nañ tey heures pile fait fu waay nekk ñu jubiler ndeyam génnee ndey pancarte de fay yi fep Sénégal Yungel, ndeyu dëkk bi avons gagné le 25 février point le 2 avril ñu avons changé suñu président gis nga élection bi moment yi peuple bi ñun ñoo fa mun nous suñu bopp xam nga man manifester mais le 25 février bi gis nga su ma heures internet de 20 h nous fait sur suñu candidat Basir Diomaye Faye nek ci internet bi fait fait à partir de 20 h barki Seigne Bamb rek ñu élection yi jeex le 25 février le 25 février à partir de 20 h nañu on a gagné le 25 février à partir de 20 h ku internet na gis fait Basir Diomaye Faye taxaw ci l'anti système est là le 25 février à partir de 20h war nañ yëngal tay dëkk bi kon le 25 février samedi comme nous ko

Nous dañuy avons élection le dimanche 25 février donc dimanche à partir du le, 25 février à partir de 20 h notre nouveau président sera Bassirou Djamay Faye point malgré mais c'est le nouveau président on s'en katta ndeyam moom la Macky Sall bëggul mais mom lañ ciy teg Si nous paree on va régler nos comptes entre nous le reste on avance man c'est Sonko ou rien mais moment bi bu Sonko a bokk ci élection bi c'est day jaxasewaat carte mois de décembre lañ ñu jëmee te Sonko déjà opposants ont commencé à Sonko négocier pour yóbbu Macky Sall deux ans moi tu l'as wax c'est archi faux mais une fois que Sonko war a ci élection yi rek day faussé wax naa leen ko son Sonko moment ce n'est pas le moment de parler de Sonko bas Sonko Tagal, on avance avec le 25 février on gagne à partir de 20 h on va manifester le 25 février ba

jàmm rek wala ñu kat si rek ñiy dee dee dund dund man loolu laa gëm Sénégal ci révolution lañu nekk révolution koy defar Bassoumo Bassoumo Mbare Daouda tey moom ya imam boobu la faral tey ñii il nous amène on et on va